Euh, une chance ñu promouvoir len ñu jàppale len sen musique bi ñu nek ñom ñu gis ci seen bopp euh, tay fu sen musique agul won ñun ñu agalé ko fa ndax am nañ relation yi am nañ carnet adresse yi am nañ outil bi parce que soldat bu dem guerre wax deug yalla te yorul yorul yorul yorul arme amul sens donc studio arme la ci artiste parce que artiste première arme bu mu yor moy plume après plume artiste d'avoir war am arme arme moy studio parce que studio nga mëna exprimer li nek ci yow li nga wara a mën donc ñun jox nañ leen lolu l'homme est doué yalla lim ñu jox moy raison ak volonté man tay du man may def euh, du man may def raison si artiste yi yàlla def nako ci ñom du may def volonté ci ñom yalla def nako ci ñom dafa dafa dafa dafa jek rek ñom ñi yéli li nekk si parce que ñu li waral li yépp man li nekk ci man rek la yé secret amu fi il n'y a pas de secret pour se faire florer pour réussir dans la vie nous on a juste réveillé li nekkon ci ñun. ñuy def kay moy la communication on va essayer de continuer def une compilation bu tuddu les grands de la petite côte après compilation bu bu génné dinañ def communication dinañ def ay concert génne artiste du nek maam ji la ñuy parce que man dama né li nekkatul mbirum maam ji c'est pour la nouvelle génération on va essayer de def cette compile chaque deuk artiste bu deuk Mbour mbala koñ bi nga bok bo si bokkee ñu tégal la fa concert ak staff bi ànd ak yow ak staff ñu woné liñ li nga liggéey ak ñu woné aussi structure bi SODAV comme ni ma ko rek damay damay damay question parce que live pour éclaircir loolu quoi parce que nous, man 2016 l'a commencé di musique 2004 la professionnelle si a un album si avons une carte BSDA si SODAV existé existé gul Yalla def ñu jënd période bobu jëndoon nañu li conditions yi ñu remplir

Euh, samay musique day jàll donc gis naa sama dernier album loolu waron nako wax bim guenné fayna 1000 euros au niveau de Belgique parce que producteur bi belge la woon xaalis bobu sabam bu Belgique dako verser versé ko sasem bu France parce que France moy liguey ak ak euh, kii SODAV bu Sénégal demaat nañ top lolou ak hologramme ñënd mais chaque jour dañ lay wër wër wër loo

Non, ils ont des amis en France. C'est des jeunes qui n'ont jamais sorti un album. Chaque, chaque fois, ils ont 1 million. Ils ont 3 millions. Ils ont des albums. Ils ont Ils ont ils ont visibilité. Nous au Sénégal, plus de 20 ans ils ont 8 000 francs. C'est comme ça. Quoi. Moi, je suis en train de faire ça. depuis 2004, waaw on tenait ñu wax Ngone Ndour mi nga xam tay mom mo yor ki bobu mo yor SODAV musuma toog ak mom mais xamna dinañ jéem a toog ak mom quand même lolu dugg ci nopam parce que ñu nit nous sommes de la Petite Côte et on fait partie si si mbir mi mbir mi nag la mu ñuy tong-tong ñu nit dañoo war am suñu sam comme ñep